qaala ifritum min al jinni te mooy ak njuuma gu bokk ci jinne yi ne ko ana aatiika bihi qabla an taquuma la qawiyyun amin benn njuuma bokk ci jinne yi ku jommale woon ne ko man mën naa la koo andil jëkk ngay jóge fii nga toog di wax ni toogaay boobu mu daan toog fa toog dana fa xëy toog ba digg bëccëg Suleymaan ne ko loolu dafa yeex ka nekkoon te bokk ci ñu am xam-xamu yàlla lu ëpp ci mu fassiroon yi wax nañ mooy asif bun barxiya moom la jubloo junj foofu yi ni wa qaala alladi indahu ilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk asif bun barxiya moom mi nga xamante ni dafa amoon xam-xam bu bàyyi ko ci yàlla am na ñu wax ni Jibril la waaye asif moom it moo gën a siiw ci tafsirkat yi wax ko ne ko jëkk sab gis di delsi ci yow mën naa laa andil sees bi ci sa kanam bi mu ko waxee Suleymaan xool kanamam gis sees bi ci kanamam seesu bu ngóor goor yi nga xamante ne ci la Balxiis daan toog mu góor Suleymaan daal ne rab min lii day sama ngeneen lu borom la lu ma lu ma defal ngir di ma ci nattu ndax damay sant xéwalam am dama koy wedd waaye nag ku sant yàlla day na nga xam ne sa bopp ngay santal ndax lool yi sa bopp rek nga ciy jëriñ yàlla cant gi du ko jëriñ dara te ku yelloo ak cant lay waaye ku wedd it day sama boroom ku doylu la wala sa cant googu du ko wàññi dara bi waxee loolu yi nag daal ni leen lëntalal leen ko sees bi ba xam dana ko xamam de muy dangeen ngeen ci dolli dara am lu ngeen ci wàññi li féete woon kaw ngeen def ko ci suuf li féete woon suuf ngeen def ko ci kaw ba xam bu ñëwee dana xam ba xam moo ko moomam de loolu li ci Suleymaan jublu mooy jubloo nattu xelum jigéen ji ku ñu wax wax bëgg nu mun a bi ak muhammad ibnu kaab ak ñu dul ñoom ci boroom xam-xam yi dañu wax ne li sabab suleymaan di nattu xelum jigéen jooju seytaane yi mu yilifoon ak jinne yi dañ doon ragal bu jigéen ji ñëwee mu denc ko te bu ko dencee mën naa am mu am ci doom joo xamante ni dana tax mu jox jigéen ji sërrub jinne yi yëm leen note ba tax duñ fi mën a jógee kon dañuy tàggatu di continuer abadan ak Souleymane bu fi Souleymane jógee ñu continuer ci ay sëtam di tàggatoo ñu ni loolu yi lañ doon bañ moo tax ñu bëgg a dox diggante Souleymane ak jigéen ja daat ko koy ñaawalal ñaawalal ko jigéen bi ni ko amut xel mu rafet moom jigéen jooju te ñaari tànkamit tànk yi dafa ñaaw ba mel ni weey mbaam maanaam noonu lañ ko waxee Souleymane ni ko tànki Balkis moomu dafa ñaaw ba mel ni weey mbaam te xel mu ñaaw la yor loolu lépp bëgguñ lañ ca doon bañ mooy rek Souleymane takk ko doom ji ko juddoo joo xam dana continuer di leen natt ñoom jëmm yi boroom xam-xam yooyu wax nañ li sabab Souleymane nattu Balxiis di ko nattu ci noon yi di da seet am xelam ba xam di jëmm yi wax dëgg la wala déet ñaari tànk yi it mu yeel yi lañ ca wax it dana ko nattu daal di digle ñu tabaxal ko benn sarx lu bëri yi daan tabax la loo xamante ni moom da koo tabax tabax seen yéemu ngir da ko def weer ak i karo ba nga xamante ni ku ñëw ba tiim ko da ngay jàpp da ngay bëgg a dugg ci lëggum géej te fekk ne weer la loolu tax Suleymaan ni sees bi fab leen li fete woon kaw def ko ci suuf li fete woon suuf ngeen def ko ci kaw ma natt te am xelam ba xam bi jigéen ji ñëwee bay jébalu si mu ni benn benn njuuma ci bind yi ci bi Suleymaan waxee ni ayukum yatini bi aatiha qabla an yaatuuni muslimin qaala ifritun min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika wa inni alayhi la qawiyun amin am benn njuuma bu bokk ci jinne yi doon ko am kàttan ne ko man bi man la ko andil dekk ngay joge ci sa jotaay bi nga tok di ci arté ba digg ba ci da bobu bu ma san tok da dafay tok ba digg ba ci mu wacc mu ne ko fi nga tok bala digg ba ci bala nga fay joge man naa andil fees bi njuuma goog yi la borom xam-xam yu wote ci nem tuddu wax du neena mi ngi tuddu kóode yi am ko ne soxay la tuddu am ko ne koosaan la tuddu mom mo wax ni man àttan ko man na ko bu yere waaye Suleymaan ni ko lu gën a gaaw loolu laa bëgg dafa amoon xam-xam bu bokk ci xam-xamu yàlla te ñu ne nañ Jibril la ñeneen ñi ne benn malaayka la ci malaayka yi koo xam yàlla daf ko boole woon ak Suleymaan mu di ko jàppale am ñu ne déedéet ci bani aadama la bokkoon ñu ëpp ci mufassiroon yi wax nañ ni mi ngi tudd Asif ibnu Barxiya ibnu Sham'iya ibnu Malkiya ab siddiq la woon dafa xamoon ismullahi al azam ba lum ca ñaan yàlla wuyu ko lum ca laaj yàlla it mu jox ko asif bun barxiya moomu ni ko ana aatika bihi xabla an yartadda ilayka tarfuk gis bi nga yëkkati dina xool bala moo delsi ci yow mën naa la ko andil daal di andi sees ba mu teg foofee Souleymane daal di wax ne haza min fadli rabbi lii de sama ngëneelul borom la li yeblu woon yaa ashkuru am ak akfur daf ma ca jubloo nattu nag ndax kuy sant xéewal laa wala dama koy weddi waaye nag ku sant xéewal day sa bopp ngay santal ndax loolu yow rek lay jariñ du jariñ yàlla dara ku weddi it sa bopp ngay lor waaye du lor yàlla dara si yàlla ku doylu la walis cantuk nit ñi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim daal di wax nag ni nakkiru laha arshaha mooy sees bi fexe leen ba fakk ko fakkal ko ko maanaam da ngeen ciy dolli dara am lu ngeen ci wàññi la féete woon kaw ngeen def ko ci suuf lu féete woon suuf ngeen def ko mu féete kaw ñu xool ba xam ndax dana ko xàmmee wala déet ñu xam ci ba xam ku amum xel la walla ab jaahil la ñu wax ne Suleymaan li taxoon mu jubloo nattu xelum jigéen jooju yi seytaane yi dañ doon ragal bu Balxiis ñëwee mu denc ko te bu ko dencee doom juddoo ci seen diggante mën naa fab mbóot mi mu leen note jox ko ko te bu boobaa tàggat bi mu leen tàggan tàggat ñoom jinne yi ak seytaane yi day continuer abadan continuer ci ay satam loolu yi lañ doon bañ moo tax ñu bëggoon mu bañ jigéen ji ñu ne ko jigéen ji ku ñaaw am xel la ay tànkamit dafa mel ni weyi mbaam weeye moog weyi mbaam ñooyam Suleymaan nag lim jublu mooy nattu xel mi ba xam dëgg la ku amum xel la wala ku ñaawam xel la boobu moo tax mun leen nakkiru laha asaha li atah tadi am takunu min al jahilin am takunu min alladina la yahtadun mun leen fakkal leen ko ko ma xool ba xam dana gindi ko wala ci ñi dul gindi ko ñu reer ñi ci lay bokk ba mu ñëwee ba ko Suleymaan nattoo ne ko ahakasa ah, xarsu ki ndax sa sees ba nga daan toog di atte ni li mel mu xool ko waaye ci xelam mu rafet saxalut ni lii ab ma ndax fam ko bàyyi woon ruqe woon na lool ba waaye weddi wutit ni sees ba ndax am xelam bi mu ko andil mooy lu ci ne lu ne war naa maa nekk maanaam mu taxaw ci diggante bi tontu ko ne ko ka annahu huwa daanaka mooma de waaw Suleymaan nag yalla nett ni mo wax ni wa utina al ilma min qabliha wa kunna muslimin may nañ nu xam-xam jekk ko tanun ay julit lan wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah mu dox digante ak lam daan jaamu nak baye yalla moy daf ko daal di wo ci ak ngëm bam nango jébbulu mom balxis dal wax ni rabbi inni zalamtu nafsi tooñ naa sama bop wa aslamtu maa suleymaana lillahi rabbil alamin tooñ na sama bop legi nak jébbalu naa ànd ak suleymaan ngir dem yalla mi borom bi def bal moom mom bim jeblo sulayman jeblo set lañ ko waxon ci tànki balxiis ni ko manam dafa yor we yu melni ni yi mbam bim da tan ñew mu woko am lum doxale mom lo xamne ab la bo xamne dañ ko tabax tan ñing ko tabaxe weer ba boo ñëwee ba tiim ko dangay jàpp ni am ndox la fekk ne verre la Souleymane tooge fële ne ko duggal ci biir te ñëw mu daal di wokk ay tànkam jàpp ni ci biirum ndox lay bëgg xuus pour mën a jàll ci Souleymane Souleymane daal di xool tànk yi ngir doon seet ba xam lañ ko wax dëgg la am déet waaye gis nañ tànk yi rafet la yor waaye nag yeel ya dafa sëq ak kawar Souleymane daal di muñ ne ko du ndox innaha Sarhun mumarradun min xawaaris ne ko sarhu la bo xam dañ ko orne ci weer waye do am ndox dañ ko tegum ndox waye du ko waye fekk ne lam jubloon a sat gis na ko bi ba tok ci wetu suleymaan dafa wax suleymaan ne ko dama la bëgg laaj dara ne ko laajal mu ni ko ndox mu mën a moo mas na ci ndox mu bari te du bàyyi ko ci suuf si du du du ab bët bu bënn ci suuf du am ndoxit mu jóge ci kaw asamaan taw ndox moom yi man la bi mu ko laajee loolu te Suleymaan lu ñu ko masaan laaj lu ko jaaxal lu mu xamut day dajale nit ñi laaj leen ko buñ ca amee xam-xam baax na buñ ko ca amut mu dajale jinne yi laaj leen ko buñ ca amee xam-xam baax na buñ ko ci xamut mu dajale seytaane yépp laaj leen ko ba demee ba àgg ci seytaane yi laaj leen loolu yi ñu ne ko loolu jàpp ni la ndox moom mun leen ana nan lañ mën a ame ndox mu deme noonu ñu ni ko dangay dajale fas yëpp digal leen ñu daw ba ñaq bu ñaqee seen ñaq woowu nga duy ci ay ndab te ñaq woowee buy tokk rek nga fexe ba ñaq woowee nga siital ci ay ndab bu mu fees kon ndox moom yi dana doon ndox moo xamante ne bàyyi ko wut ci suuf te bàyyi ko wutit ci kaw asamaan bi mu laajee seetaan yi ñu tontu ko lool yi mu daal koy tontu balxiis ni ko ndox moomu nga xam ne jógewul ci suuf ci asamaan mooy ñàkk fas balxiis ni ko wax nga dëgg dëgg daal ko waaye li ma bëgg nga xibaar ma ko après loolu mooy ndax yàlla ku am la ak ginnaaw bu mu amee it ban tegtal laa ci am nga jox ma tegtalu mu yàlla ku am la rek laa bëgg bi waxee loolu yi Suleymaan daal di tiit wadde ci kaw lal bi daal di sujjóot mel ni ku xëm ba am xelam dem balxiis dal di jóg soldaar yam àndoon yëpp dal di tasaaro jibril alayhi salaam dal di ñëwal suleymaan ne ko yaa suleymaan sa lan mooy sabir, mbir ci lan nga nekk suleymaan ne ko jibril sama borom bi moo ma gën a xam li ma nekk li jigéen ji laaj ba ma ne it moo ma xam jibril ne ko yàlla nee na nga dellu ca sees ba nga toogoon toog ca te yónnee ci jigéen ja mu ñëw mook ñi fi teewoon ci say soldaar ak i soldaaram ci say encadrement ak i encadrement na ñëpp teew nga laaj leen jigéen ji li mu la laajoon nga laaj leen ko ñoom ña ko wër ak ñi la wër ba xam lu ñu la ciy tontu Souleymane daal di def noonu toogaat ci ab seesam yónnee ñu dajale mbooleem soldaar yi bokk ci ak nguuram ak soldaar ya bokk ca nguuru jigéen ja ba ñëpp teewee ci kanamu Suleymaan kenn ku ne jël sa place Suleymaan laajaat jigéen ji ne ko ana li nga ma laajoon lu mu doon jigéen ji ne ko li ma la laaj mooy ndox moo xam ni ba woowut ci kaw asamaan ba woowut ci suuf nga tontu ma ci ni ma mooy ñax ñàkku fas loolu lu wér la mu ni ko ana leneen loo ma laajaatoon bal xees ni ko laajaatuma la leen laajaatuma la woon leen loolu rek laa la laajoon mu laaj soldaar yi waroon yëpp ni leen lu ma laajaatoon ginnaaw loolu ñoom ñëpp ñu wax lu mel ni la bal xees wax ni laajaatu la dara loolu dong la laaj ca tontu ko da mel ni yàlla def leen na fàtteloo laajub ñaareel boobee ñu doon laaj nekkul yàlla man fàtteloo ko seeni xel ñoom ñëpp daal di musal Suleymaan ci laaj boobu bi loolu amee Suleymaan daal di woo Balxiis ci islaam te fekk Suleymaan ab Balxiis gisoon na hudhud mooy picc moom yabaloon gis nañ mbir ma na nam na ko Suleymaan tàggate mu fab leetar bi ci aw sàllam ba dem jaar fa mu jaar ba jox ko ko gis na ni addiyee jam ko yónnee woon it delloo sil na ko ko ba mu xam ne kii du kese kese ab yonante la loolee ak sees bi nga xamante ni gis na ni yónnee nañ ko mu jóge fa ci saa si ñëw gis na it sarafu bi nga xamante ni Suleymaan tabaxul na ko ci weer bam japp ne lëgum geej la te yëpp yéem na ko ba tax mu dal di jeblu nangu jebal googu ko di wo dal di wax ni rabbi inni zalamtu nafsi yow sama borom man day tooñ sama bop ci kéefar gi ma nekkon wa aslamtu ma suleyman lillahi rabbil alamin legi nak jeblu na and suleyman ngir dem yalla ni borom def wax boobu nu mu nabbi wax na ne Suleymaan dafa wax bu jeblo ba nga xamante ne lijjanti na ay mbiram ba lépp sotti ba noppi nag mu ni balxiis da ngay tànn nag benn waay bu bokk ci sa njaboot ndax ma may la ko ku bokk ci sa nguur ci say nit nga xamante ne sa mbokk la koo nawlonte la koo bëgg la bu ma fasal la ko nga sëy ak moom balxiis loolu jaaxal na ko ndax jàppoon na ne buur moom wërta sëy ak kenn ndax ëpp na loolu ba tax na mës ta jaar ci sëy ak kenn balxiis ni ko waaw ku mel ni man ndax dana sëy ak góor ñi yow yonent bi yàlla bi ak ñi ma am ci ak nguur ak maxaama bii ma am ci sama biir sama biiru nit Suleymaan ni ko waaw ndax ñàkk sëy moom amul ci diine islam diine islam li ci am mooy noo mën a toll rek pour ngaa am jëkkër nekk ci biir kilifteefug nit te sëy boobu yàllaa ko daganal ci yow dafa araam ci yow nga fekk lu yàlla daganal nga di ko araamal ci sa bopp kon fokk dangaa war a sikk jigéen ji daal di wax Suleymaan ne ko kon seetal kon mën nga maa may bu fekkee sëy bi mënta ñàkk ñim maanaam buur buurub Hamazan ci sama ci sama biir kilifteef la nekk kon booye boo may ma ko Suleymaan daal koy fasal buurub dëkk ba ñuy wax Hamazan daal koy delloo Yaman jëkkëram jooju it Souleymane woo ka nga xamante ne moom moo doonoon buurub jënd yëpp kilifa ak jënn yi ko encadré yëpp ñu di ko wax Zawbana tam nekke woon ci booru yaman Souleymane ni ko buurub yaman bii nga xamante buurub xamataan bi nga xamante ne moom laa may jigéen ji na nga topp ci moom lu mu la defa digal rek na ko def lu mu la liggéey na nga ko ko liggéeyal léegi buurub jinne yooyu nekkoon yaman continuer di topp buurub boobu buur boobu buurub Hamasaan boobu nga xam ne moom lañ may Balxiis di ko liggéeyal di ko defal la ko Suleymaan waxee woon ba Suleymaan faatu alayhi salaam bi ñu amee ay at ci ginnaaw bu ñu am atum lëmu jinne yi nekkoon foofu dégg ñu ne Suleymaan faatu na am benn waay bu bokk ci jinne yi di wër ci biir dëkk yooyu di yooxu ca kaw di wax ni yéen mbooleem jinne yi maa ngi leen di xibaar ni yonent yàlla Suleymaan faat na coono yi ngeen doon tegoo mën ngeen koo teg nee na seytaane yi daal di dem fekk ñaari doj yu mag ñu bind ca ci làkku xemyar bind ca lii lañ ca bind mooy nun noo tabax njënd lañuy wax sil ñoo tabax njënd la ñuy wax ab nayin njënd lañuy wax bani nun noo ko tabax ak sarwaax ak mirwaax ak fanxoon ak hënda ak hunayda te sange yooyu yëpp ci yaman lañ nekkoon seytaane yi ñoo ko liggéey bind ci ay daj mbind moom ñu di wax ni ñoo ko liggéey liggéeyal ko bool bi ñuy wax zi taba waaye defoon ko nag jënn yi nga xam ne moo wër ci biir yaman di yooxu wax jënn yëpp ni leen Suleymaan faat na nañu bàyyi la ngeen nekkoon kon dañuy continuer di liggéeyal si tabax moom lañ ko daan liggéeyal waaye ñu ñëpp dañoo daal di tasaaroo nguurug si tabax daal di jeex nguurug Balxiisit foofu la jeexee jeexandoo ak nguurug Suleymaan ci ginnaaw bu mu faatu loolu yi moom lañu ñu nettali ci diggante Balxiis ak Sulaiman ak ngoram fi ngoru Sulaiman jaxé fa lañ wax nyutaki fa la jaxé légui ñu takki ci bir xisa Sulaiman guerre bu mu daan guerre mom Sulaiman ak jaaro bi nga xamanteni mom la daan takk te yalla defoon ci sirru bu ngor ga dir ba ko ñak ak coono bi ko dab ci ginaabum jaaro ba sa bobu dañu bëgg ci alxuraan yàlla dafa wax tabaraka wa taala ni wa alxaynaa ala kursiyihi jasadan summa anaaba wa alxaynaa ala kursiyihi jasadan summa anaaba léegi boroom xam-xam yi leeral ci leeral yu bare bari bokk na ci lañ ca leeral jële ko ci muhammad ibnu ishaq mu jële ko ci lenn ci boroom xam-xam yi dafa wax ni suleymaan dafa am benn buur bu nekkoon ci benn jasira maanaam benn dun ci duni géej gi waajoo ji mi ngi tuddoon sayidoon danoon buur bu mag nga xam ci digg géej gi la am benn dun bu nekk benn île ba nit ñi fam nekk daanaka nit mënu fa àgg waaye la muy ñoŋ ñoŋ suleymaan yàlla daf ko mayoon moom ci biirub nguram amut lenn ci biir jéeri mbaa ci biir géej loo xam ne dana ko ca namm te te te te mënu ko am yàlla may na ko kàttan gu tane lu mu bëgg ci jéer géej gi ak jéeri gi rek dana mën a am loola moom suleyman ngelaw li yanu ko ba wàccee ko ci biir il boobu yi nga xamante fala buur boobu nekk mu ànd ak ay soldaaram ci jinne jinne yi ak nit ñi ñëpp ànd ak moom mu dem fa xeex ak ñoom rey buur boobu yi muy saydoon jàpp ak njabootam yàlla dogal mu jàppale ci biir jàpp googu nag doomam ju jigéen doomi buur ba maanaam mi ngi tuddoon jaraada waaye kenn mës gis ku rafete ni moom doon ku taaru rek Suleymaan tànnal ko boppam daal kii moom sama soxna su bopp laa koy def daal koy woo ci islaam ne ko da ngay xale bi nangoo jëbbalu ci ñaari loxo Suleymaan doon ab jullit waaye jëbbalu na ci kaw waaye fekk ca biir nëbbu na ca ak kéefar kéefar gam nekkoon ca la di ca dund Suleymaan sopp ko cofeel gu tar goo xam ne mësu koo sopp kenn ci ay soxnaam place bi mu am ci Suleymaan it doon place bu mag boo xam ne kenn ci ñoom amu ko fa waaye ci biir place boobu mu am ci Suleymaan lépp it fu mu toll rek njàqare li mi ngi jàq ak a tiit jamono bi fu mu toll di jooy rek ranxooñ bi du fer mukk loolu diis loolu ci Suleymaan mu ne ko waaw yow di waaye jaaxal nga ma njàqare li ngay jàq ak a tiit rek fotal lu mu doon ranxooñ ji fu mu toll du fer rek ana lan la xale bu jigéen bi ne ko man de damay fàttaliku sama bàyyi rek di fàttaliku ngóor gam nekkoon ak daraja ja ko yàlla mayoon ak jamono ak fam mujj rek loolu rek moo may tiitloo moo ma tax di jooy Souleymane ne ko waaye yaw yàlla wóotalal na la nguur gu gën a goo xamante ni moo ëpp sa nguurug bàyyi googe boole la it nga dugg ci dine islam bàyyi keefe ga nga nekkoon te loolu moo gën ci yow jigéen ji ne ko waaw loolu lépp di dëgg la waaye nag saa bu ma fàttali ko sama baay rek dal njàqare lii may am moo ma koy indil wax dëgg yàlla ne ko bu fekkoon mën ngaa digal seytaane yi ñu deseel ma sama baay yettal ma ko ab statut ba mu mel nam meloon bi indil ma ko fii ci sama biir ne sama biir kër ma di ko gis saa bu ma xëyee ngoon gu jotit ma gont gis ko kon loolu mën naa am mu dañal sama njàqare li ma nekk dana tax ma mën koo miisit Suleymaan daal di digal seytaane yépp ñu yettal ko benn statut boo xamante ni dafa mel ni baayam yattu ko niroole kook moom ba nga xamante ni moom ci boppam bu ko xoolee moom day mel ni bàyyiwuñ ca dara dara luy néew ko bare ñu indi ko ba mu xoolal ko boppam ni leen daanaka sama jëmmi bàyyi li ñu woote daal mooy li ci ak wu nekkul waaye daanaka moo man ginnaaw bu ñu ko liggéeyee noonu ba noppi ñu daal dem wutal ko làmbaay wut wutal ko tubay wut mbubb solal ko wutal ko kaala wodd ko façon koddaay gu mel ni gabaayam daan sol daat ko koy indil teg ko ci kanamu mu xool ba gis ni lii moom baayam mooy taxaw la muy def na saa bu Suleymaan génnee kër gi rek mu xëy dem ca xërëmu baayam boobee mook mbooleem ñi mu am ci ay surga bu ñu demee di ko sujjootal bu demee bu sujjootee ñoom ñëpp ñu sujjoot ànd ak moom comme nañ ko daan defal ci jamono ba muy dund moom baayam ngoon gu jotee mu dem sujjootal ko ñoom ñëpp ñu sujjoot ànd ak moom mu continue ci lool yi waaye suleymaan yeggu ci dara yegut ni ñi ngi jaamu ab xiram ci biir kër ñu def ko lu mat lu mat ñen fukki fan asif bun barxiya yeg lii ta mooy siddiq ba nga xamante ni moo yoroon ismulaay lansam moo andi woon sees ba ci jamono bi suleymaan laajee seesu ba ne ku ma ko andil asif bun barxiya ma ko andi woon Tak bokku ci encadrement Souleymane yi gëna a doon ci si deex boole ji dégg ni jigen joji yettal nañ ko estati bu mel ni ba muñ koy jaamu suba ngon ba def na ko lu mat ñen fukki ta asif bin barxiya mi ngi foron for gu tolni sa bo accès ji buntu Souleymane waxtu wu fi mëna a moy suba muy ngon muy guddii er bu mëna doon rek bu ñëwé dañ ko bayyi mu jall mo xam Souleymane ngi ci biir wala nekk fi waaye kenn du ko tey ci buntu mu ñëw ci suleymaan ne ko yow yonente bi yàlla man day mag laa fi tollu sama yax dem na ba sew sama dund yi jeex na wóor na ma ne léegi ma dem sama faatu daal jege na loolu dama bëgg nag am benn taxawaay bu ma fi taxaw jëkk may dee muy nga dajale ma mbooloo mépp ma def benn conférence boo xam waxtaan ak ñoom ci mbirum yàlla nett li leen xibaar yi yi fi jaaroon tagg leen ci xam-xam bi ma xam ci ñoom xamal ci nit ñi it lañ ci xamutoon ci yonent yooyu ci mbiri yonent yi lañ ci xamutoon li ci ëpp ma wax ne ma mën leen ko leer Suleymaan ni ko waaw daal di dajale mbooloo ñépp daal di jóg ubbi waxtaan wi dal di leen di wax ni leen dañoo bëggee am waxtaan ñu def ci yonante fi jaaroon yéen ñëpp ngeen déglu ko ndax ngeen mën cee jariñu te Asif bun Barxiya moo koy waxtaanee ak yéen Asif bun Barxiya daal di tàmbali di tudd ña fi jaaroon ci yonante yi yonante bu mu ci tudd tagg la wax li nekkoon ci yow ci ay jikko yu rafet wax la la yàlla gënale ci kaw mbindeef yi wax lépp ba ak si Suleymaan ko kon yow nag Suleymaan nii toog tey nag yow amut ku la dàqoon a àtte bi ngay doon ko mu ne ko waaw mu ne ko gisuma it ku la kenn gënu la woon it ngay doon ko ne ko waaw mu ku la gënoon a xereñ ci bi ngay doon ko ne it amut mu ne ko waaw mu ne ko lépp lu ñuy bañ rek da ko ku ko sori woon nga ci jamono bi ngay doon ko wax ko yooyu yëpp daal di wëlbati ku dem Suleymaan loolu yi moo am ci tiitaange xol ndax gis na ne tudd na yonent yëpp tagg leen ci seen diirub jamono te moom bi mu agsee ci moom taggam wépp mi ñu yem ci ak ngone mu daal di woolu aasif ne ko yow de tudd nga mboolem ñu fi ci ay yonent tagg leen wax ci ñoom aw yi ci seen jamono yépp ak ci seen mbir yépp man nag bi nga agsee ci man li nga wax ci aw yiw ci man yépp ci sama ngone nga ko wax la ci des nga noppi ca waaw ana lan laa def ci sama mag ci sama mujj dund gi ndax dama ca sotti asif ni ko jaamu nañ ab xëram ci sa biir kër gi ñeent ci fan te loolu lépp yaa ngi ko def ci topp bànneexu jigéen rek Suleymaan ne ko ci sama kër ñu jaamu ci ab xëram ñeent fukki fan man ko waaw ci sa biir kër Suleymaan daal ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man de xam naa ne yow mi loo wax rek am na ci la ci xam la nga loo xam ngay wax waaye fokk xam nga ci dara dara daal di delluwaat këram gis ni xiram boobee mooy mooy mooy mooy jigéen dem dessin lan bàyyam defee moom lañ defi xiram di ko jaamu mu daal dem damm ca xiram ba daal di jàpp jigéen ja mbugal ko daal di mbugal mboolem ñi daan ànd ak moom di jaamu xiram ba daal di digle ñu andil ko yére laab ya nga xamante ni jigéen ju ko masaan di fët rek ju set ngay doon di nekk ci ak laab jigéen ju gis deret doo ko laal mukk mu digle yére yi jaamu yàlla am yooyu ñu indil ko ko mu sol ko daal dem ca àll ba wéet ko moom dong daal digle ñu indil ko ab doom fàttali ko ko ci suuf mu dem di tuub ci yàlla toog ci kaw doom boobu daal ci baddaañoo takkal ci ay yéreem yépp ngir toroxlul yàlla rek di jooy di ñaan yàlla di sàkku ak njëgal ci moom ci këram bi ñu jaamu te yëgu bokk na ci nam doon wax yàlla nee na ko yow sama borom bi yëlul ci aalu daawooda ñuy jaamu ku dul yow ndax lii nga leen defal mosu ko defal ci yëlul ci aalu daawooda yi day ñuy saxal ci seen kër mbaa ñuy saxal ci seen waa kër ñuy ñuy jaamu ku dul ndax li nga leen defal ci di wax loolu yi di baddaane ci suuf si di jéggulu yàlla ba ngoon jot mu jël ci këram bi mu del see këram amoon na benn xale bu jigéen buñ daan wax Amina boo xam ni saa bu masaan bi bëgg dugg ci wana wa wala mu bëgg a jaxasoo ak kenn ci ay soxnaam day summi jaaro ba mu daan sol jox ko xale bu jigéen boobu yi ba noppi ba laab ba noppi door jëlaat jaaro ba salaat ko dawul laal jaaro ba mukk ci lu dul ak laab ndax jaaro bi ñu ngi ko liggéey woon ci wurus wu xonq ak ko indiloon ñu bind ci laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah mu mel ni jaaro boobu yi bu nguur gépp dafa nekkoon ci biir jaaro boobu benn bis nag mu summi ko loolu bit jox ko kam ko daan jox seytaane soppiku ba mel ni melawu Suleymaan te seytaane si defoon loolu ñu ngi ko daan wooyee sax melal boppam ni Suleymaan ñëw ci jigéen ji nga xam ne jigéen ji daal amu ci lan lu muy sikki sàkk bi mu ko gisee rek jàpp na ni kii Suleymaan ni ko yaa Amina yow Amina samab jaar jigéen ji daal koy xale bu jigéen daal koy jox jaaro bi dam gën a gaay seytaane sa daal di fab jaaro ba takk ko daal di génn dem toog ca sees ba Suleymaan daan toog njanaaw yeeg jinne yeeg nit ñeeg seytaane yépp daal koy wër jàpp ni mooy Suleymaan ba Suleymaan génnee dikk ci xale bu jigéen boobu waaye aw meloom dafa daal di ko ca saase ba ko ko gis di ko nattal léegi bi mu tëkkul jaaro lañ xamoon ci moom mu mel ni kii doon koo dal ba mu ñëwee ni amina ni xale bu jigéen boobu andi sama jaaro xale ba ne ko yaway kan mu ne ko mën a suleymaan ibnu daawud mu ne ko yaa mën a fen yow da ngay suleymaan suleymaan dikk fii ba jël jaaro ba dem ba ma nga toog fee ci at sees ba mu daan toog di at da nga dikk fii jaay suleymaan suleymaan daal di xam ne ñaawteef bi ñu doon def ci këram muy jaamu xëram bëkkat loolee rek moo wat ci kawam mu xam ne nattu bi yàlla dikk na léegi mu daal di gën di taxaw ci buntu kër yi bani israel yi di wax ni man maay suleymaan ibnu daawuda waaye dañuy fab suuf di ko ko sëllax di ko saaga di ko wax lu ñaaw naan kii moo dof xool leen dof bii naan mooy suleymaan nga xam ne dañuy yéemu ci wax ji muy wax ne man a suleymaan ñu jàpp ne dof buy wër naan maay suleymaan rek waaye du mel suleymaan bi suleymaan gisee loolu jaaxle ci lool ci bane israel mu mel ni xàmmeetuñ ko naan daa dof dofuy wate ak suleymaan la mu daal di génn dem ci géej ga ba mu demee di jàppale mool ya fay liggéey di rëbb ay jën di ànd ak ñoom di leen toxalle jën yi ñu di ko jëlee ci géej gi di ko yóbbu ca jaba di ko jaay ca marché ba bés bu set su liggéey ak ñoom ba ngoon ñu jox ko ñaari jën ba ngoon jotee bañ jox ko ñaari jënam mu dem jaay wenn wa ci aw mburu maanaam day dem joxe wenn ñu jox ko aw mburu wa ca des mu butti ko daal koy waaj daal koy dunde sax na ci biir ci biir lool yi rëbb moom yi nekk ci géej gi sax na ci lu mat ñeent fukki fan niirub diirub ñeent fukki fan yeen jaamu xëram ba ci këram rek yàlla natt na ko ko ngóor gi dañ mu dem ci géej géej di rabb ay jën aka sonn ndeysaan di wareelu waaye ci biir ñeent fukki fan yooyu seytaane sa nga xamante ne moo takk jaaroo ba toog fa bañ ba niru Suleymaan bañ jàpp ne ma Suleymaan biir boobu yi doxaleen wi wuute na lool ak doxin waa Suleymaan daan dox ñu bari ñu bari lool lool jikko yuñ gis ci moom yoo xam ne daal wuute na ak na Suleymaan daan doxe bañ am ci ak sikki sàkk Asif bun Barxiya mi nga xamante ni moo doonoon boroom xam-xam ba nekk ci seen biir ak boroom xam-xam yi bani Israël yépp asif moomu ñoom ñëpp jaaxle nañ ci seytaane soosi daal ndax dal doxalin bi daal dafa mel ni dafa soppi ku ba xaw a ëppi loxo ci ñoom asif dajale bani Israël ak boroom xam-xam yépp ne leen waaw yéen bani Israël ndax gis ngeen àtte bii Suleymaan di àtte fii nu toll ni mu wutee ak àtte ba mu daan àtte bu jëkk ndax li ma ci gis ngeen yéen gis ngeen ko ñu ne ko waaw ñu ñun koy jaaxal na lool ndax soppiku bi ëpp na mun leen kon xaar leen ma dem ci ay soxnaam laaj leen ba xam mu demee ci ay soxnaam laaj leen ni leen ndax yéen soppiku gii ma yëg ci Souleymane ndax yëg ngeen ko ci ñu ni ko gu ko gën a tar yëg nañ ko ci ndax gis nañ ni genn sell rek xamuñ ko ci moom dafa mel ni rek du woon Souleymane daal daa mel ni daa soppiku aasif daal ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna inna haasa la huwa albalaaul mubin lii day musiba bu mag la daal di génn dem ci bani israil moom aasif bun barxiya daal ni leen ñi nga xamante ni kat ñooy soxnaam yee ndeke liñ xam ci soppiku gi yéen xamu leen ko ci sax soppiku gu gën a garaaw gi ngeen di gis am na ko ci biir bi ñeen fukki fan yi jeexee seytaane soosee daal di jógee ca jotaay ba dal dem ba rombu géej ga di dindi jaaro ba sanni ko fa di daw ndax gis na contre gi bari lool ñepp di ko mu xam li yef yaangi bëgg a toj looloo ko ragal lo mu dal di gaaw genn dem sumi jaaro ba sanni ko ci géej ga daal daw dem aw jën wan ko am kat bu ko rëbbu te rëbbukat kat bobu bam koy rëbb bobu Suleymaan mi ngi and ak kat bobu di liggey bañ jakké ba ngon ba kat ba fa ñaari jox ko ñaari jën ko jox ñaari jën yam ko jox yàlla dogal wenn woo moo wannoon jaaroon bii Souleymane jël ñaari jënam jaay wenn wa wa ca des nga xam ne moom la war a dunde ba mu ko buttee fekk jaaro ba ca biir mu dal koy jël dal koy takk def ko ci loxoom daal di sujjoot rot sujjootal yàlla sant yàlla bi mu defee loolu séroob nguur gépp daal jël si ci moom picc yeeg jinne yeeg nit ñeeg seytaan yépp daal di ñëw wër ko kapp daj ko kapp mu daal di dem ci nit ña daal di xam ne li nga xamante ne dellu ci nit ña daal di nekk fam nekkoon ca nguur ga waaye mu xam ne li ko dalkat mi ngi ko dale ci xiram boobu yi ñu jaamu ci këram ñen fukki fan yooyu moom la ko yàlla natoo mu ñàkk nguur gi ñen fukki fan yooyu daal di tuub tuub gu sell daal di dajale seytaan yépp ni leen andil leen ma saxr almaarit mooy seytaane soo si nga xamante ne moo sàccoon jaaro bi te fetteetlu andil leen ma ko seytaan yépp dem wari ko ba indi ko Suleymaan daal di xar aw doj dugal ko ca biir wut weneen dëppale leen ci dëpp teg ko ci kawam daal di wut ay càll la ay ay ceen la wut tak ko ci mom deugar mom moom waa mom moom moom sosu tak ko yeew ko bam ni ne mu sanni ko ci bir geej non noonu ñi la def setan ci nga xamanteni mo moo jaru ba li moy hadithu wahb ibn munabbih ci li sabab ko ngol sulayman gi ci ñan fukki fan yooyu am na ku ñuy wax nag Muhammad al-Ajali mu jëlat ci it ibnul Musayyab mu wax ne Suleymaan ibnu Daawuda li taxoon yàlla nattu ko nattu boobu yi mooy dafa am ñeent fukki dafa am ñetti fan yu mu tëju yoo xamante ni jaxasu wut ak nit ñi attewu leen lam leen war a defal defalu leen maam maanaam atte bi ko yàlla dénk mu tëju ñetti fan yoo xamante ni defu ca dara yàlla wax yu ko ne ko tëju nga ñetti fan bàyyi sama jaam yi ci bitti seetul seeni mbir kañ ca tooñ attewoo ko ba delloo ko ak tooñam waaye dinaa la nattu daal nattu bi am na ñoo xam dañoo wax li sabab nattu bi mooy ñetti fan yooyu mu tëj woon te attewul nit ñi lam leen war a atte ñu ngi ciy natt bi ñu ngi ciy natt li faatuk suleyman qaala allahu taala fa lamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu al ardi min saata فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين استوي يي يعني واخنا سليمان ساخنا سي نغور غوغي غيناو بوكو يالا دل دل دلو سي سي نغور غي غيناو بوكو يالا دلو جارو با مو ساخ سي نغور غي جيني يي اك شيطان يي ديكو ليغيال لوكو نيه سي اي محراب كوم نيمكو واخه ميم محاريبا wa tamaasiila wa jifaanen kal jawaabi wa xuduri raasiyaat di ko liggéeyal lu ko neex ci ay mihraab ak i timsaal muy estati ak i bagaan ak i cin yu sax lu mel ni ay mbana yépp ñu di ko liggéeyal ci na mu ko bëgge Suleymaan moom yi ku masaan def lu ko naqari ci seytaane yi mbaa jinne daf lay mbugal ca na mu ko bëgge ñam ci bëgg mbugal dana leen mbugal ñam ci bëgg libéré mu libéré leen daan leen digal ñom jinn yooyu ak sheytaan yi ñu yanu ay doj yu diis diko tuxal ba fam ko nonu bi yalla bi iblis ñew set ci leen niru jëmm ñu baax te jamono bobu ñi ngi liggéey rek sax ci liggéey bobu am ci fayda lool mu ñew ni leen naka ngeen ñu ne ko ñun de li ñu nuy tag wax dëgg nañ ko iblis ni leen doj ana nu ngeen koy yobbo bu ngeen di dem ngeen koy yobbu bu ngeen di jël ci du ngeen andi dara ñu ne ko waaw noonu la def bu ñuy yanu dañu koy tuxalloo rek ñu yanu yóbbu barab sàngam dikkaat ak suñu loxee neen mun leen yéen yéen ngi cib naflaay loolu koy wax dëgg méttiwut ngelaw li fab waxante wi iblis waxante ak jinne yi daal koy yóbbu ca suleymaan mu dégg ko ba ko suleymaan déggee ni leen de len fab doji diko di ci yóbbu ca barab sàngam boobee bu ngeen démé ngeen jële fa ay doji man nangam yanu ko andi digal len bu ñuy dem nañ yanu bu ñuy del si yit nañ yanu iblis dikati fañu len laaj len nu ngeen di def ñu ko bu ñuy dem dañuy yanu bu ñuy del si dañuy yanu mun len waaye guddi gi da ngeen noppal di nelaw ñu ne ko amul mun ah yéen kay sonn leen yéen ngi jëm fay ngelaw li jëlati loli yobbu ko ci sulayman sulayman digal len ñu bañatee nelaw guddi ñuy liggéey waxtu yépp feeñoo feeñooti leen ñu jàmbat ko coono bi ñu nekk ni ko guddi sax duñ ko nelaw dañuy liggéey guddi ak bëccëg léegi mun leen nu ngeen def ñu ni ko wax dëgg li nu yen li ñu nu yen de attanuñ ko ñu ni kon daal Iblis ni leen kon àgg ngeen ci daal lépp lu ko neex rek da ngeen ko ko defal lu mu leen digal rek ngeen def nga xam ne amul lenn lu mu leen digal te defu leen ko nu mu ko soobee rek noonu ngeen koy defe ñu ne ko waaw mun leen kon bu ngeen yeboo neggandiku ta xamni legi wuñu ko njàqare am ci seen kanam parce que nit sa bu agge ci lepp lu mu bëggoon amé ko nam ko bëgg rek na ngeen xamni yef ya ngay bëgg a jeex waaye ba mu leen waxee loolu dir bu gàtt lañ sax rek suleyman daal di faatu ibnu abbas dafa wax ni suleyman da daan tëju ci biir baytul maqdis daana fa tëju lu mat at ak ñaari at di fa tëju weer wala ñaari weer ak lu gën a néew loolu daana ko def ñu di ko fa fekk aku ñamam di ko fa fekk ak la muy naan waaye du génn biir baytul maqdis ko wi yoon wi nga xamante ni mooy bi faatu gi ñëwee nag ba mu duggee ci biir baytul maqdis fi mu tàmbalee mooy nam demee mooy bi mu demee ba war a tàmbali euh, won ak ni mi ngi bëgg faatu ibnu habas neena daf daan def sa bu xëyee ci baytul maqdis ak garab dana fa sax ci fofu muy jaamoo yalla garab googu fa sax suleyman daf koy laaj no tuddu mu ko man maa ngi tudd garab sangam mu yow ana luy say njariñ garab ga ni ko maa ngi jariñ nangam ak nangam ak nangam suleyman digle ñu dagg garab goge def ca digle ca lañ ko wara jariñu daal koy leeral mbooloo bu fekkee gu ñu war a jëmbat barab sàngam la mu digle nañ ko jële fii dem jëmbati ko barab sàngam bu fekkee dafa am lu muy faj ñu bind ciw kayit taf ko ci kaw garab ga ni garab gi nangam a ko a jóg ak nangam ak nangam wax la muy faj nee na loolu yi yàlla def ko mayoon Suleymaan ci biirub nguram benn bis muy julli gis ak garab gu sax ci kanamam mu laaj garab gi ni ko noo tudd garab gi ni ko man maa ngi tudd Al kharnuba Muni garab yow lolu la lu tax nga sax garab gi ni ko li ma tax a birab bi manam ràppug birab bi dal moo rappal ko bari wax ni déedéet ni ko allahu taala li yukharribahu wa ana xayyun dal ni baytul maqdis du ràpp mukk ta mangi dafa kon sama alkane nga ma jubloo jënj ndax baytul maqdis mom du rap mukk tamay dund bi waxe waxee garab gi daldi buddi garab gi dem jëmbat ko ci peggu ab miram mom suleyman daldi di ñaan ni yalla yalla na nga neub jinne yi sama de ndax nit ñi xamni ni jinne yi xamuñ xeyma loolu moko ñaanal te lu jitt loolu jinne yi dañ daan xibaar nit ñi ni leen nun ñu xam xaybu lañ bari na loolu luñ xam ci xaybu lu leen ci nëbb rek na ngeen ko laaj ëllëg sax bari na luñ ci xam biñ waxee loolu yi moo taxoon suleymaan ñaan yàlla ni ko na nga leen nëbb sama dee ba nit ñi xam ne xamuñ xaybu ci ëllëg sa suleymaan daal dugg ca biir mihrab ba di julli sukkandiku ci yat wi daldi faatu ci noon yi mu sukkandiku ci yat wi continuer ci noon yi mu mel waaye seytaane yi xamuñ ni faatu na ñu continuer di liggéey di tiit lool ni bu génnee mën naa am mu mbugal leen ñu continuer ci ragal googu yi lu mat at wax nañ ni nekk nañ ko fa ba la leen xamal ni faatu na mooy dafa am ak max gu maxeel yat wa mu sukkandiku woon ba max ga ba yat wa daa daa di daa di rës Suleymaan daa di rot ñu xam ni faatu na loolu yi ab riwaaye la ci faatu Suleymaan ku wax Abdurahmaan ibnu zayd wax na ne suleymaan dafa mas a wax malakul mawti ni ko saa ñu la digalee nga war maa jël si nag ma ko xamal benn bis malakul mawti ñëw ci suleymaan ni ko digal nañ ma day ma jël si la léegi ay waxtu yu néew moo la desi ci àdduna bi ko malakul mawti waxee loolu yi suleymaan daal di woo seytaan yépp digal leen ñu tabaxal ko benn pokkus boo xam ne ci verre verre lañ ko tabaxee te amut bunt mu dugg ca biir ñu ñu tabax pokus bi mu war ko bañ ko wutal bunt daal tàmbali di julli sukkandiku ci yar woo mu daan sukkandiku malakul mawti fekk ko foofee jël roo gi te jamono boobu mi ngi sukkandiku ci yar wi mu faatu ci noonu wax nañ ni seytaane yi dañ ko daan wër wër mihrab bi wër jullikaay bi fu mu mën a nekk rek dañ koy wër te mihrab bi booba dafa amoon ñaari bunt benn bunt bi nekk ci kanamam benn bi nekk ci ginnaawam am na ñu wax ni seytaane yi la leen xamal ni faatu na dafa am benn seytaane bu wax moroom ja ni ko bu fekkee ñeme nga dangay dugg ci bunt bi nga xamante ne moo jàkkaarloo Suleymaan dugge ci kanamam génne ca bunt bee ca gannaaw nee seytaane soose dugg ñeme daal di dugg ci kanamam génn ca buntu ginnaaw ba te Souleymane waxu ko dara te Souleymane ku ko masaan romb noonu yi dugg ci biir seytaan su ko masaan def rek da ngay lakk ba mel ni sawaraal lakk ni ni sawar di lakki nit noonu la leen turu yàlla yi mu yor daan lakke waaye seetaan si jaare ci bunt bi romb ko génn ca bunt bee te dégguñ kàddu Souleymane te dara jotu ko ginnaaw bi mu xool ko gis ni Souleymane faatu na bu génn daal xibaar nit ñi ni leen Souleymane faatu na ñu ubbi bunt ba daal koy génnee gis ni yat wam sukkandiku woon max gi lekk nañ ko lu yàgg ba mu maxe waaye xamuñ nag bi mu faatoo léegi diir ban la ndax sukkandiku gi yàgg na waaye xamuñ nag diir diir bi mu faatoo li mu fi sukkandiku ceeb bi lépp ba mu faatoo léegi nu mu toll ñu nattu ko ci wut aw yat tëral ko ci béréb bu ak max nekk bés bu set lam cay maxeel ñu xool na muy toll ñu nattale bés yi ba ni kon bi mu léegi ci ak nattale normalement at la war a toll parce que ak max li ñuy lekk par bis ci aw yat ñu ko nattale gis nañu lam ci lekk lépp ci at lay toll ko Ibnu Mas'ud wax na ni gannaaw bu mu faatoo sax nañ fa at di liggéey te xamuñ ne Suleymaan faatu na foofee fa la nit ñi amee kóolute ñi ni kon nit ñi ndekete xoo euh, ndekete ndekete jinne yi dañ doon fen waaye xaybu gi ñu doon woote ne xam nañ ko ndeke xamuñ ci dara ndax buñ xamoon xaybu dinañ xam ne Suleymaan faatu na te kun duñ continuer ci mbugal ci coono boobu métti boobu di liggéey rek di continuer wax nañ ni seytaane yi dañoo wax max ga ni ko buñ xamoon ñam wan nga bëgg de dañ la indil ñam wi gën a neex ci ñam wi buñ xamoon naan gooy naan yow max gi dañu la indil ndox mi dàq ci ndox yi ngir sante la ko ci lii nga def ci maxeel gi nga maxel yàlla bañ xam faatu su leen ndax coono bi ñu daan jànkonte ba wax nañ ni biir biir bant bi max gi maxeel toujours lañ fay gis mooy ñam gi nga xamante ne seytaane yi ñoo koy indil max gi loolu yi am na borom xam-xam yu wax loolu wax jooji la yàlla junj ci alquran ne falamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard taakulu min saata bañ demee ba dogal dégg ci moom dara xamalu leen ni deen lu dul gis rek max gi ñuy lekk yat wi daan sukkandiku al min saatu mooy al asa ci làkku habasha Es yi wax Souleymane ci jamono yooyu muy faatu mi ngi amoon juróom fukki at ak ñett toog na ci nguur gi diirub ñeen fukki at ndax ba muy toog di doon buur booba mi ngi toll ci fukki at ak ñett te am na fa ñeen fukki at ci nguur gi lépp buñ ko muy juróom fukki at ak ñett wax ni bim ginnaaw bu ci nguur gi am ci ñeenti at la tàmbali sos tabax baytul maqdis fofila la ak balxiis ak xisab jinne ja sàccoon jaaro ba ba toog ca sees ba ak natt bi ku yàlla natt woon lu mat ñeent fukki fan yoo xamante dafa ñàkk ngur gi xisa yooyu foofu la kon bi muy faatu mi ngi am juróom fukki at ak ñett gannaawam doomam ko ju ñuy wax ruuxa moom Suleymaan ci boppam moo digle woon ni su ma fi jógee na ma wóotu ab nabi yu la woon muy dañ ko yónne woon waaye du doon mursal nabi yu la waaye woon mursal moom moom yi ba mu fa jógee moom doom ja toog na fa lu mat fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba doomi doomam jooju wóotu fa ku ñu wax Afiya ibnu Ruhayam nguuram toog na fa fukki at ak ñett gannaaw wax asa ibnu afia tok don bur donon nit ku bax waye nak dafa laggi won daf dan so nga xamanteni Febru jamono bu ne day am tank manam maanaam tu tank bu koy doya doyadi gog yi mu di won ak ñak gi katan tax na yi ko ñep xeymem ko daniel ndax ñu mëna don nguruk bani bani israel yi ba am na xeex bu dox digganteem ak benn buur bu bokk ci buuri ind mu ngi tuddoon ruux ruuxul hind ànd ak mbooloo mu bare bari waaye yàlla yabalal ko ay malaayika ñu jàppale ko ba dàq buur boobu gañe ko bañ leen gañee ba dàq leen ñu dem ca géej ga yàlla yabal fa ngelaw yu bare bari ak duur ci géej yi seen gaal yooyu ngelaw li euh, labal ko ba ruuxul xindi moom yi ci biir ngelaw loolu la ci ginnaaw bu mu jógee ci xare boobu mu leen xare ak ñooñu wax nañ ni ci loolu lépp bani Israël continuer waaye ginnaaw bi ay buur wóotu nañ fa Suleymaan yoo xamante ni dañoo bàyyee jaamu yàlla continuer di jaamu ay xiram ba ba merum yàlla fekk leen ca moo tax mu yabal buur ba ñuy wax baxtan sar mu doon ku am doole mu ñëw xeex leen ba nguur googu jaaxee ci seeni loxo kon foofu yi mooy jaaxitalu nguurug suleymaan ak daawuda ak ña wutuwaat ci bani israil alayhimu salaatu wasalaamu ala nabiyina afdalu salaami wa anna taslim was dafa wax ci biir xikma yi nga xamante ni ñu indi ci tuuti ci xikma yi nga xamante ni yàlla feeñaloon na ko ci luqmaan ndax dolli kooku njariñ luqmaan ci xikma yim daan dénkaane mas naa wax doomam ni ko yow sama doom bul xam lu xam-xam ngir di ci puukare wante boroom xam-xam ya bul xam lu xam-xam ngir di ci werante ak ñu dese ñi bul xam lu xam-xam it ngir di ci njëstalante ci jataay ya waaye bul bàyyi xam-xam ngir dëddu xam-xam ak xeemim goo xeemim ak réer yow sama doom dénk naa la ngay tànn jataay yi ngay toog bu fekkee ni fekk nga ab jataay ñooñe di fàttaliku yàlla toogal ak ñoom ndax bu fekkee ni boroom xam-xam nga yàlla dana la jariñ ci sa xam-xam bu fekkee xam-xam am nga xam-xam ci sa jëmmi bopp sa xam-xam boobu dana la jariñ te danañ la dolli xam-xam bu fekkee ni dangaa ré bu fekkee ni léegi amoo xam-xam danañ la xamal loo xamutoon bu fekkee ne dangaa fekk aw nit ñoo xamante ne duñ tudd yàlla bul toog ak ñoom ndax bu fekkee ne toog nga ak ñu fàtte yàlla kat te doon boroom xam-xam bu boobaa sa xam-xam dootul dootu la amal njariñ bu fekkee ab jaahil nga woon toog ak ñoo ñi dul tudd yàlla yi dañ lay dolli ak réer te mën naa am bu yàlla demee ba di leen mbugal fekkaale la fa mbugal ma da ca bokk mu delluwaat ni doom ji li ma lay dénk mooy booy def lu baax mbaa nga di ko wax na nga ko def fa ka koy sàmm booy wax lu baax it na koo wax ak kay sàmm lu baax ndax na nga xam ni kat diggante am xarakuk til ak xaritoo mënta am ci seen diggante naka noonu diggante ku baax ku bon ak xaritoo du fa dox mukk te nit ku ne it kam sopp rek lay àndal nit ku ne it fa ñamuy ñam fa muy dugg fa lañ koy boole moo tax bul dugg mukk ci jataay boo xamante ne dees na la tuumaale ndax ku ànd ak kuy def lu bon doo mën a mucc ci lu bon mukk te ku moomut aw làmmiñam dana amuk rëccu yow sama doom doonal ab jaam ci tànneef yi tànneef yépp nangu la doon seenub jaam waaye nag li ma lay dénk yi mooy bul xaritoo kàccoor yi yow sama doom dénk naa la nga doon ku am kóolute boo doonee ku am kóolute day danga doon ku woomal bul wan nit ñi mukk yit ni leen dangaa ragal yàlla te fekk sab xol ak kàccoor la feese del yow sama doom del toogaale ak borom xam-xam yi te fab sa ñaari bëti di ko sësale ci seen ñaari bëti mooy sësal ci ñoom rek bul tàggu ñoom mu ko te bul weranteeg ñoom ndax boo weranteeg ñoom kat bu ëllëgee doo am seenu waxtaan te loolu pertement bu mag la jamono ba ne na leen di ñeewant cib laaj boo leen di laaj na leen di laaj ci ak ñeewant mooy bu leen bundoo xatal bu lot lo it ba tax ñu di la yokkat ndax boo leen lo mooy teg leen luñ attinut dañuy tàyyeel ci say mbir loolu bul ko def dénk naa la it mbir mu la won ginaaw bul ko topp di ko sàkku waaye mbir mu la jublu si it tëyal bul ko bul ko delloo dénk naa la mbir yi lu ñëw rek tëyal waaye lu la won ginaaw it bàyyil loolu mooy li ma ndax topp lu la woon gannaaw ak delloo lu la jublu si kat loolu des na ci xelum nit yow sama doom bu fekkee yaru nga ci sag ngone day da nga jariñu ci sag mag ni yow sama doom bu fekkee tukki nga yaa tukki bul sonal sa waruwaay booy bi ngay dem ndax loolu dana la dimbale ci booy dellusi si ko yan lu mu àttan booy dem ndax booy dellu si ndimbal lay doon ci yow ndax di dem yan ko lu àttanut kat bokkul ci jëfi boroom xam-xam yi bu fekkee tukki nga ba wëlbatiku ba jege kër gi wàccal dàbba ji te jox ko ab dundam jëkk ngay jël sa dundu bopp foo wàcc yaag sa dàbba na ko dundal jëkk ngay dundee sa bopp maa ngi lay moytandiku it tukki ci njëlbeenu guddi gi li ma lay dénk mooy booy tukki na nga xaar ba ca mujj guddi gi ak teel a xëy balaa digg ba ca gëjëm booy tukki it nga yor sa ngànnaay na nga yor sa kaala nanga yor sa koddaay yor naan gi ngay naan yor dund bi ngay dunde yor pusa bi ngay ñawe yor wëñ gi ngay ñawe te na nga yóbbaloo booy tukki na nga yor saafara yi ngay fajoo garab yi ngay fajoo ba wéradee luy tolloog la nga ci war a jariñoo ci wetu tukki bi na nga ko yóbbaale yaag ñi nga àndal te na nga dëppoog ñi nga àndale ci ay wax ak jëf ba mu des ci lu jëm ci mooy yàlla